gannaaw loolu ñu fas yéene door ak yéen tey ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala genn ak càllale goo xam ne dana wuteeg yiñ baaxo woon di ànd ak yéen ndax càllale gi moom mu ngi jëm ci ay leeral ak ay tontu ak wuñ wuññi ay lëntëki tuuma yoo xam ne des koy faral di jëmale lii di adaatu salafiya ak lenn ci duaat yi càllala googu nag ñu ngi koy tuddee safahatul burhan ala safahatil udwan li ko waral mooy dimanche bii ñu génn cheikhuna docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahu llahu taala wa raa dafa woote woon fële ca grand théâtre ngir déclaration boo xam ne bëgg na koo jëmale askan wi yépp gannaaw jataay boobu nag coow yi bari nañ ci lool moo xam ci réseaux sociaux yi la moo xam itam ci lenn ci média yi la muy télévision wala rajo lu mel noonu nag moo waral ñu bëgg ubbi xët yi li tax mooy ñenn ci commentaire kat yooyu donte commentaire ya soo ko xoolee dëgg-dëgg la ca ëpp teguwut ci xam-xam teguwut ci ak maandute yenn saay sax du tegu ci ak niti waaye mu ngay tegu ci ak nooneel ak ak mbañeel ak kiñaan goo xam ne ñenn ca comman ña doon def commentaire yooya amal nañ ko kii di cheikhana docteur Mouhammad Ahmad Lo ak cheikhana cheikh Ibrahim Khalil Lo waaye ak daawatu salafi fii ci Sénégal d'une manière générale nga xam ne suñ sañoon mu nekk loo xam ne dafay giim nekk lu fay dootu ko waaye hayhaat daawa bi ca kaw ca kanam rek insha allahu taala ndax du lenn lu dul lislaam te lislaam moom foo koy xeexe bëgg koo freiné jàppal na yaa ngi koy gën a may doole yaa ngi koy gën a yëkkati loolu nag moom moo leen dal loolu moom moo leen dal bañ bëgg nag di rëccantiku waaye nag di ko defee anam woo xam ne anam wu ñaaw la ñu ne ñu doon def commentaire yooyu so xoolee amna na lenn ci ñoom ñu ñuy askanale lii di xam-xam jàppe len ay woromi xam-xam ñuy nekk ci média yi di wax am ñu leen di déglu ñenn ci doomu aadama yi sax jàpp nañ ne xëy na ñii duñu waxee seen bànneexu bakkan comme ay warom xam-xam lañ la ñuy wax itam dañ cay am fuñ ko sukkandiku ba tax mu xaw leen indil jiixi jaaxa ci yenn tomb yoo xam ne nañ ko loolu bokk na ci li tax ñu bëgg ubbi xat yi ngir di ci indi ay leeral incha allahu taala waaye ñoo ñu doon def seen commentaire yi soo leen xoolee duñ génn ñaar ñii nga xam ne ñoom ñépp li ñuy yàq ci diine ji kenn mënu koo natt te loolu ñu ngi ko dégg woon ci waxtaan boo xam ne cheikhuna docteur Mouhammad Ahmad Lo defar na ko ci ne ñuy yàq ci diine mënees na koo xaaj daanaka ci ñaari xaaj koo xam ne dafa am suul xasd muy jubluwaay boo xam ne jubluwaay bu ñaaw la ak koo xam ne dafa am suul fahm déggin wu ñaaw ki nga xam ne dafa am jubluwaay bu ñaaw kooka moom daanaka ay waxam ak ay jëfam ak ay yëngoom mu ngi jëm ci ak yàq ki nga xam ne nag dafa am suul fahm déggin bu ñaaw la am déggin woo xam ne wu juunu la am ci mbir yi kooka mën naa dox ngir defar mën naa dox ngir jagal waaye nag dégginam bu ñaaw booba bu juunu booba mën naa tax mu yàq loo xam ne pour nga defar ko dana nekk lu jafe lool te ñi doon commentaire yépp soo leen xoolee ña cay ña ñu cay askanale lii di xam-xam ak ña nga xam ne xëy na askanale leen xam-xam ci leneen lañ leen di askanale waaye ànd ak loolu yépp jóg nañ indi ay wax ca lu aju ca déclaration ba wala lu aju ca jëmm yooya walla lu aju ca lañ bind wala ci seeni waxtaan nga xam ne ñooñu ñëpp soo xoolee kon duñ génn ñaar ñi benn mu nekk koo xam ne jubluwaay bu ñaaw la am ca la muy wax wala mu nekk koo xam ne am na déggin wu ñaaw ca mbir ya mën na nekk itam koo xam ne dafa boole ñaar yépp am jubluwaay bu ñaaw ak dégginu ñaaw kooka nag moom moo gën a nekk musiba te ñooña dinañ ci cité ñaar ñoo xam ne ñu fës lañ muy kii di xaadim buso ak kii nga xam ne mooy maxtaar saar ñoom def nañ ay audio wala ay vidéo yoo xam ne tas na lool ci réseaux sociaux yi ñooñu xam naa te lañ wax ca la ñuy njëkkee incha allahu taala door a dikk ca la ñeneen ña wax ñoom ñaar nag ki ñuy njëkk ay waxam mooy kii di xaadim buso ndax su ngeen xoolee moom dem na ci benn plateau télé ñu invité ko mu wax fa tuumaal kii di cheikhuna docteur Mouhammad Ahmad lu doon jéem a prouvé que ne li cheikh bi wax keroog ca jataay ba ne amul ci téere bi mu ngi ci fees dell bi nga ko defee Cheikh Omar Diallo demaat na ca plateau ba nga xam ne foofa la waxe woon loola mu indi ay leeral wone na loola mu waxe yépp ay sos la demewut na mu ko waxe mu wëlbatikuwaat tontuwaat Cheikh Omar Diallo ci wone ne Cheikh Omar Diallo benn mu wax nekkut loo xam ne lu am la dëgg la wala na docteur Mouhammad Ahmad Lo dafa sàcc waxu jàmbur te askanelewu ko kooka moo tax ñu bëgg tàmbalee ci waxam moom xaadim buso ndax mu ngi doon wax ni soo demee ci téere boobu di taqdisul aspaas ci page 560 ci tom bu njëkk bi mu ne docteur mu ngi wax ni suufiyanke yi ñoom lu dagan lu xaraam xàmmewuñ ko maanaam lu xaram amut ci ñoom lépp a dagan ci ñoom ba nit ki sax mën naa sëy ak way juróomu jigéen wala jigéenam bu jigéen comme ni ñu déggee mu wax ko ba tudd sax ay tur ci ñoo xam ne ay kilifa lañ ci Sénégal yoo xam ne pour gën a xiirtal nit ñi rek gën a yëngal xol yi pour ñu gën a am ak nooneel ak ak mbañeel jëmale ko ci ahli sunnati wal jamaa walla ki nga xam ne moom moo taalif téere bii di na docteur Mouhammad Ahmad Lo waaye soo demee ca page booba dangay gis ne wax ja nga tàmbalee ci fa haula innaas idan laysa indahum ma yusamma bil xaram mu ne nit ñii wala nit ñooñu kon amut fa ñoom lu ñuy tudde lu xaram lii rek nit ki su ko déggee même sax ni nga xam ne noonu la ko na docteur Mouhammad Ahmad Lo bind su ko firi woon noonu kon ki déglu mom dana xam kon wax ji wax ju ñu tabax ci wax la waaye du wax joo xam ne dañ koo tëbate bi rax wax ko ndax wax ju ñu tabax ci wax la ndax fa haula nit ñii kon loolu nit ñi dina xam li lii ab au la dafa aw nit kon jubluwuta wax nit ñëpp amna aw nit woo xam ne moom la nit ñooñu ñan la idan laysa indahum kon waa su kon nit dina tàmbali wax rek ne kon déedéet li ngay dégg fii kon su ko firee woon sax ni nga xam ne na docteur Mouhammad Ahmad Lo noonu la ko waxee kon képp ku koy déglu dana xam ne wax ji nga xam ne cheikhuna docteur Mouhammad Ahmad Lo wax na ko wax ju ñu tabax ci wax la te itam annaas boobu mu wax am na ñum ci jublu ndax daf leen a junj ñooñu mu junj itam ñan la loolu soo ko bëggee xam faw nga yéeg tuuti ci téere bi muy ci page cinq cent foofa la tudde nit ñooña wala foofu ngay xamee nit ñam jubloo wax te nit ñooña du ñenn ñu ñi nga xam ne dañoo gëm lii di wax wahdatul wujud nga xam ne lépp loo gis ci kawnu bi rekk yàlla la nit ñeeg garab yeeg mbaam yeeg xaj yeeg lépp yàlla la lépp ci jëmm yàlla bi subhanahu wa la bokk ñi gëm loolu la wax ne fa haula innaas doon la koy firndeel mooy waxu tilmisaani bi nga xam ne indi na ko te toxalee ko ci ay téere yoo xam ne tudd na leen ne wax ji maa ngi ko toxalee ci alfurqaan bayna al awliya ci page 88 89 ak ci majmuul fatawa bu cheikhul islaam ibnu taymiya mujallad numéro 13 page 186 ak téere bu ñu tuddee bughyatul murtaad page 491 wax ji nga xam ne la bëgg indi te tilmisaani wax ko moom nee na soo demee ci téere yi da nga ko fa fekk ndax fa la ko jëlee mu ne wala walamma xiila li tilmisaani bañ waxee kii di atilmisaani ne alquraanu yuxaalifu fusuusakum léegi di alquraanul karim dafay wuteeg seen fusuus yi muy fusuusul xikam bu ibn arabi qaala mu wax ne alquraanu kulluhu shirkun alquran lépp léppam bokkaale la wa innama tawxiidu fi kalaamina tawxiid mu ngi nekk ci suñu wax fa qiila lahu fa ida kaana alwujudu waaxidan fa li may kaanat zawjatu xalaalan wal uxtu xaraaman mu ne su fekkente ne am gi benn la lépp loo gis ci kawnu bi yàlla la kon lu tax soxna di dagan doom di xaraam tilmisaani tontu ko ne al kullu indana xalaal ñun day lépp a ci ñun walakin haula il waaye nag ñii nga xam ne dañ leen a yiir ba nga xam ne amuñu kashf dañ leen a yiir wuññilu leen bañ xam dëgg-dëgg mbir yi nu mu demee ñoom ñooy wax ne xaraam na ñu ni ñu wax ne xaraamun aleykum xaraam na ci yéen kon docteur fa haula innas mooy nit ñi nga xam ne ñoo gëm pas-pas bi di al wahdatul wujud nyom ñoo amut lu haram ci Sohna soxna dagan na doom dagan na jigen dagan na bàjjan dagan na ci ñoom amul lenn lu haram ci ñoom ndax al Quran kulluhu shirkun parce que al quran lépp shirka shirk la lu tax ndax alquran dafay teqale diggante jaa am ak boromam lolo tax ñu ne kon alquran bokale la ndax tekkale jaam ak borom amut lépp len la wa innama tawhid fi kalaamina mu ne tawhid wéetal yàlla a tawxid fi kalaamina mu ngi ci sunu wax kon docteur su ne fa haula ñii nga xam ne nee nañ fii kalaamina ci suñu wax ñooñu la jubloo wax ñu la jubloo wax waaye waxut sufiyanke yépp waxut sufiyanke yépp te tilmisaani mii mooy suleymaan ibnu ali ibni abdillah ibni ali al kuumi atilmisaani mu ngi gane àdduna ci atu juróom benn téeméer ak fukk nga xam ne moo cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullahu rahmatan wasia mi nga xam ne cheikh na docteur Mouhamad Ahmad Lo toxalee na lenn ci téeréem wax ji ñoom ñoo bokkoon jamono bokkoon nañ jamono ndax cheikhul islam ibnu taymiya mu ngi gane aduna 661 ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn aduna 728 kon da ngay gis ne kiidi tilmin salimi gane aduna 610 fatu 690 hijria ca dimasque kon mook cheikhul islam ubnu taymia rahimahullahu rahmatan wasa jamo lonte nañ bi tilmin sani di génn aduna boomu cheikhul islam ubnu taymia mu ngi war a am fanweeri at ak benn te wax ji nga xam ne toxal na ko soo demee ci lenn ci ay téeréem da ngay gis ne koo xam ne daje nak tilmisani don jàng ci mom nekkon am dongo ci tilmisani mi mom moko netti wax ji moko netti wax ji ndax so demé ci Sofadiya juzu ñëkk bi page 245 da fay wax ni wa hadathani thiqa moom cheikhul islam um ibn taymiya ne ko xamni ku wor nettali ma alladi raja anhum la tashafa لمن كشف له أسرارهم أنه قرأ عليه فصوص الحكم لابن عربي قال فقلت له هذا الكلام يخالف القرآن فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا تؤتل من ساني مو مسخ بس بسم بوب اجبنا اج يس بأشيرا دي مغي نتلي ne àndoon naa ak moom benn bés ñu bena benn xaj boo xam ne dafa ràmm xaj bu ràmm bu faatu bu dee ñu romb ko mu ne ko haada min daatillah mu laaj ko ne que lii itam ci jëmmu yàlla ji la muy xaj bu bu dana daf koo tontu ne ndax gis nga loo xam dafa génn jëmmu yàlla ji subhaanahu wa taala lépp loo ci gis rek ci jëmmu ba xaj bu ràmb bu dee bi tëdd fii ci jëmmu yàlla ji la bokk benn bés ànd naa keneen koo xam ne dañoo romb ab xaj mu weq ko mu ne tilmisaan ne ko bu ko weq ndax moom tamit ci jëmmu yàlla ji bokk nga xam ne pas-pas boobu bu yàqu bu bon boobu la amoon kon cheikhul islam ibnu taymiya nee na ku wóor nettali na ko koo xam ne alladi raja anhu anhum la man kachafa lahu asraaru koo xam ne bokkoon na ci ñoom nekkoon na ci ñoom doon jànge ci ñoom waaye nag mujj gi mu bàyyi leen génn ca loola gannaaw ba seeni mbóot wuññeekoo ci moom gannaaw ba mu demee ba xam ne ñii lañuy jàngale dafa waroog alxuraan ak sunna mu génn ca summeeku ca ba wecc kooka moo nettali cheikhul islam ibnu taymiya ne ko man kat jàngoon naa lii di fusuusul xikam bu ibnu arabi ci tilmisaani ma ne ko nag lii hada alkalaam yuxaalifu alquran wax jii de dafay wuteeg lii di alquranu alkarim tilmisaani tontu na ko alquranu kulluhu shirkun alquran lépp bokkaale la waaye tawxid daal mooy yang koy fekk ci sunuy wax tawhid yang koy fekk ci sunuy wax wa innama tawxidu fi kalamina so demé ci benen beurep ci majmuul fatawa bu cheikhul islam ibn taymiya ci mujalladu ñaarel bi da ngay gis muy nettali wax jooju ni wa haddathani cheikhu al aalimu al aarifu kamaalu diin al maraaxi شيخ زمانه من النتل نما كون سيكا بل مو وخون كو وور كيغا خامني موم لا وخون ني موم موكو نتلي من ام كون شيخ بي لا داخ في دا وخني وحدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه لن نكون نتلي موي موم تي جيمي بوبام moko netti ne qara'tu ala al afif al tilmisani من جنغنا تكيد أتي المساني من كلامهم شيئا فرأيته مخالفا للكتاب والسنة من بما جنغ كموم لولو ولما جنغ كيساني وخ لو خمنا دال جسنا نووتنا أقليد القرآن والسنة من قرأت جنغنا على العفيف التلمساني min kalaamihim ci seen wax shay'an mbir moo xam ne daal jàng naa ko ci ñoom ma gis ne dafa wuteeg lii di alquran ak sunna fa raaytuhu muxaalifan lil kitaab wa sunna فلما ذكرت ذلك له قال القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد foofa loolu la fa wax mu ne boroom xam-xam bii de alcheikhul aalim al aarif kamaluddin al maraaxi bam jàngee ci kii di al afifu tilmisaani ci seeni wax mu gis mu lii di alquran ak sunna daf ko ko wax ne ko ah lii lan na ko atilmisaani tontu dana ko alquranu laysa fiihi tawxid ne ko alquran amul tawxid tawxid nekkut ci alquran بل القرآن كله شرك bali alqur'anu kulluhu shirkun qur'an daal léppam bokkaale la mu teg ca ne wa man ittaba alqur'ana képp koo xam ne topp na lii di alqur'an lam yasil ila tawxid du egg ci tawxid mukk mu ne ko qaala fa qultu lahu mu ne ma ne ko ما الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت الكل واحد من كان لن مو تقل تيين ديغنت سخنا اكو خامن جامور بو جيجن لا تي ياو اكو خامن خينا سير لا تي ياو كوم ليب لين لا ليب يالا لا نيت كي يالا لا كو غور كي سخنام يالا لا جيجنام يالا لا جامور بو جيجن بي يتام يالا لا ليب لين لا ليب يالا لا kon lan moy tekkale digënté soxna ci ak jambour bu jigen bi ak sœur bi mu tontu ko ne laa farqa bayna dhalika indana mune ci ñun mom ak tekkale amut ci yoy mom ki soxna la ki sœur la ki jambour bu jigen la lolu mom amut ci ñun la farq bayna dhalika indana wa innama haulaa almahjubuuna taqadu xaraaman fa qulna huwa alayhim indahum mu ne ah ñii nga xam ne dañ leen a yiir wuññi luñ leen kiiraay yi bañ gis dëgg-dëggu mbir yi ñooñu ñoo fas ne dafa xaraam ah ñun itam ñu ne xaraam na ci yéen waaw mu ne fa qul naa huwa xaraamun alayhim indahum kon nga gis ne wax ji nga xam ne moom la xaadim bu sa wax tilmisaani moom moo ko wax li nga xam ne nag moom lay wax ne mooy waxu docteur fi'lan waxu docteur la mooy fi mu wax ne fa naas nnaas idan laysa indahum maa yusamma bil xaram kon docteur na kon nit ñii nit ñi nga xam ne lii lañ gëm ñoom ñoo wax lii ne moom lu xaraam moom amul ci ñoom sœur beeg soxna jamur biji bu jigéen bi ñoom ñëpp a yem ci ñoom te alquran lépp bokkaale la tawxid mu ngi ci seen wax ci seen wax la nekk waaye nekku ci alquran ñooñu la docteur jublo wax ne fa haula innas ko nit ñii laysa indahum ma yusamma bil haram kon lu ñuy lu haram amut fa ñoom amut fa ñoom mu kon lii di sër du xaraam ci frère am yaay itam du xaraam ci lan ci doomam ci diine ñii mu ni fii diini haula gis nga mu précisé waat moom docteur xam nga dana fa haula inaas nit ñi idan kon laysa indahum ma yusamma bil xaram kon nit ñii nga xam ne dañoo fas lii di waxdatul wujud gëm ne kawnu bi li fi nekk lépp lenn la muy yàlla lépp loo fi gis ci jëmmu yàlla ji la bokk lépp loo fi gis yàlla la dàll beeg nit keeg xaj beeg mbaam meeg fas beeg nag bi yépp yàlla la mu kon ñii gëm lii lu xaraam amul ci ñoom loolu la wax fa haulaai naasi idan laysa indahum ma yusamma bil xaram kon su boobaa sœur du xaraam ci frère frère itam du xaraam ci jamur jàmbur bu jigéen itam du xaraam ci ku góor gi yaay itam du haram ci doom ji doom du xaraam ci yaay du du xaraam ci baay fi diin xaawlay ci diin ñii ne kullu daalik loolu ci lan lañ ko tabax ci pas-pas boo xam bu yàqu pas-pas boo xam yahudi ak nasaraan yi sax fasuñu ko muy lan wahdatul wujud cheikhuna docteur Mouhammad Ahmad Lo teg ca wax cheikhul islaam ibnu taymiya rahimahullahu rahmatan waasi'a wax na ko di wone contradiction bi nga xam ne sax am na ci pas-pasu ñi nga xam ne dañoo fas lii muy pas-pasu wahdatul wujud mu ne yaqulu ibnu taymiya هذا مع كفره العظيم متناقض ظاهرا فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب mu ne cheikhul islam ibnu taymiya dafay xam ne ànd ak kéefaram gi li nga xam ne wax ji waxu kéefar ji mu wax ànd ak kéefaram gu màgg googu yépp wax ji soo ko xoolee ci bitti dafa nekk loo xam ne lu waroo la lu waroo la ndax su fekkente ne am bi kenn la lenn la lépp yàlla la waaw mu ne kon fa manil mahjub wa manil xaajib ana kan mooy ki ñu yiir ak ki yiire ndax su ne walakin haula il kon ca waxam moom ci boppam sax lëm wax waxdatul wujud boobu mu ko bëgg kon différence amna na lépp du lenn lépp du yàlla kon ndax amna na ñoo xam ne dañ leen a yiir waaw wuññi lu ñee leen amuñu kashf bu mën gis kon ñooñu kon groupe la à part ki yiir ki leen itam kon keneen la كن لولو تخ شيخ الاسلام ابن تيميه اذا كان فان الوجود اذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب من ولهذا قال احد شيوخهم لمريده من قال لك ان في الكون سوى الله فقد كذب قال له مريده فمن الذي يكذب من لولو تخ كن سيرين إيه maanaam ñi nga xam ne <clears throat> dañoo gëm lii di wahdatul wujud wahdatul wujud ñi nga xam ne dañ koo gëm kenn ci seen sëriñ dafa waxoon ab taalibeem ne ko képp koo xam ne wax na la ne ci kaw ni bi am na leneen lu fi nekk te yàlla kooka fen na kàcc na faxat kadaba waxul dëgg taalibe bi ne ko ana mooy kii fen kon kum ci kaw ne bi yépp lu fi nekk rek yàlla la nga ne ku la ne leneen a ngi fi tudd yàlla kooka day fen ana kiy fen mu ne fa bu xitale di kafar kon soo xoolee da ngay gis ne fa haula innaas bi nga xam ne docteur ahmad lo wax na ko moo ñi nga xam ne dañoo gëm lii di waxdatul wujud du mu tabax ko ci wax ji nga xam ne tilmisaani moom moo ko wax kon wax ji wax ju ñu tabax la ci waxu tilmisaani yi mi nga xam ne moom wax nañ ne alquran lépp shirk la ndax alquran dafa day teqale diggante jaam ak boromam looloo tax mu ne shirk la mu ne nag tawxiid mu ngi nekk ci seen wax ñoom diggante soxna ak sër xaraamut dafa dagan ñooñu la docteur wax na fa haula innaas idan laysa indahum ma yusamma bil haram donte ñooñu ak kuréel la ci sufiyanke yi waaye wax ji da ngay dégg ne waxut ne sufiyanke yi yépp nii lañ mel waaye sufiyanke yi nga xam ne am nañ pas-pas bii nga xam ne moom la tilmisaan yi ja doon jàngale wone ko leeral ko fii ñi am pas-pas boobu la kon ñoom lu haram amut ci ñoom loolu wax ju leer la waaye nag ñoom pour xiirtal nit ñi ci docteur ak ci téere bi ak ci ahlu sunnati wal jamaa moo tax ñu ne docteur dafa wax ne sufiyanke yi amul lu xaraam ci ñoom sër ak jigéen ak yaay ak yépp a yem ci ñoom loolu du wax joo xam ne dëgg la wax joo xam ne jaxase la ak lëntal ak xiirtal nit ñi ci aw nit kese loo xam ne ak mbañeel ak ak nooneel moo làqu ca ginnaawam kon lii moom mooy nekk jataay bu njëkk bi nga xam ne euh, dinañ ko indi ci càllale gi nga xam ne moom dañ tudde safahatul burhan ala safahatil udwan aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh